bëreeg moom ma ñaax a moom loolu taxul ma nekk bañ nekk mbër taxul ma bay a aussi tamit fu ko yàlla tuddee ne naa ko fa jëlee rek pour man incha allah di naa ko jëlee te li ma digg waa géejawaay je confirmé tey laa ko gën a confirmé incha allah bu neexee yàlla suñu borom dama koy teewaat bu neexee yàlla waaw. pare na pour bés ñëw ñu euh, xam nga man dama toll ci liggéey nekk xale nekk jeune euh, Modou bu ñu doon bëri fii dix fois pare naa pour bëri moom ak ku mu mënti doon ku mu mënti doon parce que tey dañoo nekk ci yoon boobu yoonu liggéey la ay xale la ñu ñu bëri yaakaar ñu su ma liggéey amul kenn ku ma ciy gànkal parce que tey su may encadrement sax duñ nangu loolu moo war a bëri nekk fi naan damay toog di def année blanche wala may xaar kii wala may taamu kuy non non ku ñu làmb booleel ak ku mu munti doon damay bëri moom ndax wax naa ko démb muy dix combat muy cinq combat làmb moo ñuy boole dañu war a bëri loolu moo am importance parce que man lu des suma carrière bëri na man mën naa euh, douze ans wala treize ans des na sama carrière wala parce que bëri naa xaaj mu des xaaj kon li sama carrière macha allah bëri na li ma war mooy ma entraîné nekk suma bopp xaar ku yàlla ku ñëw baax na. Mm-hmm. fan yi dañu gis euh, Sénégalais yi xewaloon lu naan ten years challenge mm-hmm. ten years challenge yooyu ñu gis sa benn photo bu yàgg ak Baye Ndiaye mm-hmm. ak ñu ngeen nekkee fi ñu toll nii maanaam nan nga ñu mën a expliquer waatee sa relation ak ak famille xam nga lu naan lu yàgg dëgg la mais àdduna ku xamul woon rek xamul mooy li may wax rek man salle de musculation Aziz moom ko njëkk a fayal sama premier grand combat ak Mame Goor Diouf na ñi ñu seetaan sama combat ak Mame Goor image boobu noonu ba ma bëree daan Aziz moo njëkk a daw jóge ci toog ak ay kilifa mais fàtte ne sax moom tey euh, fu mu toog mais dafa daw ñëw songu ma encouragé boobu maa ngi doog a dugg ci laamu 2005 ku saan image boobu di nga ko gis Balla man Mansour Diouf yàlla dogal ñu nekk ñu nekk ñu nekk ba yoonu yàlla tey jii nii may wax ak yow kon dama bëgg ñu ñi xam ne Aziz des hypocrite doomu sénégale la nekk doomu Géejawaay nekk kilifa ci réew mi nit ñi respecté ko nit ñi naw ko man bu ma déggee nit ñi di wax sax ay Aziz yi Aziz yi ay rey daf may jàpp wala kon ñoom dañuy bëgg pourtant am na ñu bëri tey ñu ngi faral seen i mbër ñu ngi nekk ak seen mbër xam naa nag Aziz moo bëri bàyyi nag macha allah xëy na moo tax mu demee noonu Baye Ndiaye depuis ñu nekk yàgg na nekk ay xale boo gisee photo yi ak kay ba yàlla defal ni tey. xam ne kon nekkul loo xamante ne lu bees wala dafa xew nit ñëw nekk ak ñun li ñuy dund dafa dëgg si ñun boo déggee mbëri tey ma jox la benn exemple ku fi na ay 100 pour cent Balla 100 euh, cent Géejawaay la ñu jëlee li képp kuy sàcc ay 100 pour cent wala 100 pour cent lii ci Géejawaay boo ko déggee kon lu ñuy def ñun nit ñi ñooy roy ci ñun moo tax lépp lu ñuy wax rek dañu xam lu ñuy wax euh, te xam ne yàlla defal nañu loo xamante ne defal ko kenn bu njëkk Pikine rek dégg ci ay mbër def na Pikine Tyson Tyson pourtant lu mu def ci làmb tey kenn defu ko da nga gis sax ay ñoo xamante ne dañuy jaxase ay Pikine ñëw wax naan Tyson duñ koy boole te Tyson moo njëkk indi roi des arènes bu nit ñi bëggee tey làmb wala tey man mii di waxee jow yow Tyson moo tax parce que Tyson moo nekk suma idole moo nekk royukaay boo xamante ne ñëpp xam nañ loolu moo tax vraiment loolu pour man ku xamul dañ lay xamal pour nga xam Aziz suma lépp la bàyyi suma lépp la famille la boo xamante ne tey def na kon nañu ñaan yàlla seytaane bu ñu dox suñu diggante ak moom waaw mbër bu loolu weesoo ñu projeté wu ci xew yi xew euh, après combat parce que gis nañ ay vidéo yu am mi ngi défilé sur la toile mm-hmm. ñu am ay pratique mystique yu am te ne yaa ngi ko doon waajalee sa combat ñu fësal ko ba am ñu bëri ñoom ñu ngi lay bëggee ñoom loolu dañ koy ñaawlu yow loolu nan nga ko gisee non ki ma bëgg dëgg du du ñaawlu ci loolu parce que nekkee ci domaine lamb domaine lamb lañ nekk tey du ma dox ci mbedd bi di simeeku di def loo xam waruma ko def parce que nit laa mais bu ma nekkee ci préparation dama koy def li mu waree man daal ñaanuma yàlla tey def lu bon ba am ci ndam waaye luy ñaanlu luy sangu pour aar sa yaram pour aar sa bopp dama koy def pour mucc loolu moom importance image yooyu ñu gis noonu image rek pour pourtant takk ngeem moo gën a garaaw simeeku yaramu neen nit ñaa ngi toog jëlee seetaan <laughs> loolu garaawul pour man waaw mais ñu bëri dañ ne mbër naam war nga préparer mystiquement mais ñu bëri dañ gis ne war na mën a ànd ak sutura yenn yenn secret yi ko a nëbb. làmb boo demee ba simeeku sutura amu fi boo demee ba simeeku sutura amu fi bisu làmb amul sutura parce que tey da nga simeeku pour bëree da nga simeeku pour jaayante jàmbaar mooy jaayante gor mooy jaayante parce que boo simeekoo looy bañ ay naan ay sutura sutura mënut a weesu tey. yàlla na yéex yàlla léegi nga gis néew bu ñuy denc sax image yi di ko wane loolu la du question la loolu la xam si sutura na nit ñi delloo seen xel bu ñuy wax ñu xam baax lu ñuy wax parce que tey làmb boo xasee ba simeeku ñoom fay la moomatoo sa bopp ay sutura amu ci bu ginnaaw boo simeekoo rek yow non di ngeen bu amatul loo xamante ne ay sutura la. parce que nekk lu hmm? hmm. euh, a par exemple proposé nañ la Bombardier wala Tapha Tine wala yan mbër lañ la proposé wala aussi yow ndax pare nga pour bëriwaat fii ak fin de saison. waaw man loolu moom may gënal parce que xam nga xale laa te jeune laa liggéey moom war tamit damay xëy nekk suma entraînement nekk suma liggéey nit nu muy xëy nekk ci bureau man noonu laa xëy nekk suma bërëbu liggéeykaay muy salle de musculation muy physique muy diin loolu suma laa def bureau mais comme man liggéey lañ ma sant. képp ki nga xamante ne man maa ngi déglu sumay kilifa di déglu sumay encadrement ku ci mel ni Baye la ko déglu ak suma papa rawatina suma estaf ku ci mel ni Aziz lépp li nga xamante ne moom la nit war a wax ak man amul lu muy wax ak man muy promoteur muy ku wàllu soxla rek moom ngay waxal man liñ ma sas mooy liggéey mais pare naa pour ñëpp balaa ma saison bi tëj ma soñoon ma bëri bëgg naa ko. manifestement daal gisuñ ko benn yoon ci ci ci làmb ji. Mhm. léegi mënoon nga ñu expliquer sa diggante am lan la combat bi lan xew seen diggante. non xam nga moom mu ngi ci préparation du ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi seen pré moom moo ngi préparation mais ñeneen ñi aussi tamit mun nañu occuper parce que moom def na fi open press boo xam peut-être gisuma parce que làmb moo baaxee noonu boo nekkee ci combat yu bëri du la waat da ngay lëlu nekk ci sa bopp loolu moo tax mais la requête amul. na la non du ñuy faral nag di déggante lu bëri bëri bëri mais ñu ngi wootante yoroon sama numéro yor naa numéro am peut-être dafa jàpp moo tax ñëwul. waaw mbër bu leel weesoo ñu wax ci li nga xamante ne mun naa ni moo gën a waral coow li après combat. muy sorte bi nga xamante ne Aziz def na ko. moo suscité ay réaction yu bëri gis nañ ku mel ni Birame ñi ngi daal di wax ku mel ni Pambay nijaayu Modou Lo daal di wax ba xaw a ŋàññi Aziz sax ni bëri na làmb ñoo xam te ne da leen wooye bu xoolee seen comportement ak seen état d'esprit matewul ñu leen wax yow loolu nan nga gisee sorte boobu nga Aziz def na ko wa kilifa du caaxaan kilifa yalla mo koy def doomu adama buñu ñak rek commencé nit parce que ñu di wax xamuñu Aziz fréquenté wuñu Aziz xamuñu Aziz moy kan kilifa munta weesu tay lu bax li ngay def ibi société Sénégal yor ñaata employé di dans un dole di dimbali sénégalais di dimbali jeunesse bi munta weesu bu gamu teewoon joté nga def lu baax ñëpp teg seen bët Touba Tiawan xalifa bokkunte fépp mu def lu baax kilifa mënut a weesu loolu mais Aziz dafa am fu mu far nëbbu ko làq ko mais ñoom bu fekkee dañoo am far fenn di far feneen nañ ko wax peut-être mooy tax ñu waxe loolu mais Aziz kilifa mun te weesu yàlla def yàlla suñu borom moo ko def Aziz kilifa pire la romb na sax kilifa pour te dire romb na kilifa dépassé na kilifa yàlla def na ko lu mu doon kenn muñ ci daal dañ koy ñaanal yàlla mu yokk. Aziz tey ku naan diw kilifa loolu ay caaxaan la rek Aziz responsabilité la nekkul làmb moo koy dundal <laughs> nekkul làmb moo koy may lu mu am déedéet yàlla moo ko teral Aziz kilifa piir la kon ñoom bu ñuy wax ne Aziz kilifa wala ay am-am bu ñu tudd ci am-am am yàlla moo koy def ci desin la day am ko am ñoo xam ne yàlla la may ko amul ñoo xam ne yàlla la may mais Aziz dafa fu mu far wane ko nëbb ko làq ko c'est très normal. doomu géejuwaay la léegi day nëbb ne doomu géejuwaay la parce que nit ñi moom moom mii di wax loolu bërëm ñi nga kon xanaa day nëbb ne moom doomu parcelle la wala tey ta euh, coach bi nga wax ne xanaa day nëbb ne moom doomu parcelle la du mu ngi koy fësal di ko wane mais ñun du ñuy Assane Aziz da koy fësal wane ko Balla Gaye 2 moo ko jar ak doomu géejuwaay yëpp yemul ci man rek ñëpp lay jàppale ñëpp lay soutenir loolu mooy yoon waaw am na ñu ñoo xamante ne sax ñi ngi ñi ngi sukkandiku ci loolu di wax ni gason Mbengue dafa lal pièce teg teg pièce moo ko Aziz daal di tendre pièce sa adversaire loolu lan nga ci wax. non loolu ay waxu caaxaan la rek xam nga nit moom ñëpp umpale wuñ ne tey man 2010 ba muy bëri Modou Lo lig ni ko laay xaritu Modou Lo la emtim xaritam dëgg àdduna bi ñëpp xam nañ ko. pourtant man ba may jël avance xooluma sax ne kii xaritam la wala kii nangam la damaa dem jëli avance bi bëri ak moom yàlla may ko ndam. te pourtant <laughs> Luc Nicolaï li mu sëkk ak Modou Lo dépassé nañu affaire lamb di ànd ak moom fu ne di def di ko jàppale biir ak biti est-ce que loolu nit ñi moo tax may wax nit ñi sénégalais bu ñu fàtte xaaj fàtte xajugu fi parce que àdduna bi yàggul mais fàtte xaju fi ñëpp xam nañ ni Luc Nicolaï xaritu Modou Lo woon te moo tëgg làmb ji léegi <laughs> Aziz moom suma suma xarit la suma papa la suma mag la suma kilifa moo engagé Balla Gaye numéro 2 jëlal ko avance am préparé ko yàlla may ko ndam ñu war koo félicité nag loolu moom importance li ci yëpp rek amul importance Aziz am na droit far fu ko neex ku nekk fi nga far na nga fa farte noppi yàlla na mooy may ndam. waaw waa géejawaay moom xam nga ne awma seen fay parce que fi laa juddoo fi laa yoro fi laa màggee fi la ma yàlla def li mu def képp ku dëkk géejawaay nga doom doomu géejawaay rek maa ngi lay sant di la gërëm di la sargal biir biti di la wax suma yaay suma papa yi suma morom yi suma yumpaañ yi suma maam yi vraiment sant naa leen gërëm naa leen gis naa taxaw bi ñu may taxaw ci biir Géejawaay rawatina nag golf bi nga xamante ne fii laa yeewoo képp kuy doomu golf rek maa ngi lay sant di la gërëm kon Géejawaay maa ngi leen di sant di leen gërëm rawatina waa Casamance waa Guinée Bissau waa Mali waa Mauritanie ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm. vraiment. waaw mbër géejuwaay info ñu taxawal ko. pour représenter géejuwaay. ñu gis travail bi nga xam aussi ñu ngi koy jël di ko def. di accompagner doomu géejuwaay ci événement bi moom ñu bi nga xam te ne koy préparer képp comme am nga bis ñu taxawu la. tey boo amoon looy wax yow lan ngay wax ci waa géejuwaay info ak la population géejuwaayoise. waaw géejuwaay info maa ngi ko doon seetaan depuis ba ma nekkee fële hmm, Paris maa ngi ko doon seetaan benn émission wax dëgg yàlla. rëccuma ci man parce que géejuwaay laa gëm mooy li may faral di wax moom laa gëm moom laa bëgg lépp lu doom sama xol sedd na ci dama leen ci ñaanal yàlla tey euh, lépp lu leen ci bëgg rekk suñu borom defaral leen ko parce que tey nit euh, lu ñu xewle yéen a ngi ci lu ñu bëgg yéen a ngi ci kon yàlla na leen yàlla taxawu te jàppale leen en tant que doomu géejuwaay waaw kontaan naa. ñu lay nuyu ak sa émission grand champion bi nga xam ne ni yow yaa nekk mbër bi ci njëkk invité di nuyu aussi suñu nijaay bi moom Njaga Doole mbër Njaga Doole nga xam ne moom sama rakk yaay la moom moo ñu permettre ba xam nga ñëw am accès bi ba dal fii nii quoi donc ñu lay dellu sant bi la gërëm xam nga di profité ci occasion bi aussi di sant ñi nga xam suñu directeur yi am na ak caméraman ñoom Cheikh xam nga ñoom may mun a waa di gërëm sa staff bu baax a baax Canal SN di leen gërëm bu baax di leen ñaan aussi comme télé bu bees euh, pardon site bu bees yàlla na waaw en même temps la yàlla na yàlla taxaw leen te jàppale leen kon ni may faral di ñaan waa doomu Géejawaay rek parce que àdduna tey ñu ñëpp benn lañu li ñoo faire la force yéen a liggéey bi yàlla na yàlla taxawu def leen ñëpp ràññee leen ñëpp xam leen ngeen bëri bayre lool macha allah. kon kontaan naa di la wax jërëjëf yow tamit aussi kon ni di sant njaga doole bi nga xamante ne moo tax nga am accès ci man maa ngi koy sant moom it sama nit la sama xarit la yàlla boole nañu jërëjëf waaw mbër kon ñun aussi waa Guédiawaye info ñuy sant ñëpp ñi nga xamante ne rek yombal nañu liggéey bi ku ci mel ni Père Bass Ndiaga Doole ak euh, sa entourage yëpp léegi daal comme ni ko suma confrère waxee le mot de la fin ak ben message ngay lancé à la population à l'endroit de la population guédiawayoise particulièrement à la population sénégalaise waaw waaw kontaan rek euh, nit moom amul fu goxam amul fu nga xamante ne moom la dëkk kon li ngeen def nii euh, vraiment kontaan nañ ci torop di gërëmaat rek doomu Guédiawaay yëpp dina xamal ne doomu géejaay moy wax yow doomu géejaay moy ko interroger kon vraiment kontaan nañ ko ci melni ndigal ma koy sant yusu bu Baye Ball ma ngi koy sant kharim El djouf Diouf vraiment de ndigal euh, Bamba ma ngi koy sant Badou gërëm ak sim bi nga xamante vraiment suma wala suma nit la ak Ndiaga dole ak Ama balé suma frère Sakes dafa buju ak commissaire Fall ak tierno gay vraiment maa ngi sant bu baax di leen gërëm di leen wax kontaan naa bu baax merci beaucoup. waaw bokk internet yi loolu moo doon waxtaan bu am solo bi nga xam te ni sekk nañ ko ak les grands champions Balla Gaye numéro 2 ma tuddee ko rek le lutteur à l'esprit mental inébranlable parce que nekk na ko xam te ne à chaque fois combat yi rëy yëpp bu ñu ko xaaree day ñëw wane boppam te gis nañu marqué na retouram euh, le 13 janvier dernier. yaakaar naa loolu moo doonoon tey suñu teewaay fii nga xamante ne mooy golf di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous prochainement di sant aussi suñu technicien l'incontournable Bekay Koundoul